suppose quand même ce projet a commencé. C'est pas 143, c'est plus de 150 véhicules. Bon. Sur okay. combien Sur combien de véhicules Maintenant, c'est sur, puis, de financement véhicules? privé. Non, je donne des précisions techniques. C'est sur financement euh, privé avec Mais pour dire que globalement, que globalement euh, liggéey baa ngi dox ñoo ngi amélioré wu question de sécurité routière daf ñuy concerner ñun ñëpp parce que aussi ñuy def visite technique c'est des Mhm. ay sénégalais lañu. ce sont des agents mante ñuy defar décret yi projet et tout c' est des man sénégalais laa donc kenn du xalaat ne que wax dëgg yàlla que lii boo defee contrôle bi nga bañ ko jox man du ma euh, du ma ko ndamoo du ma ko ndamoo parce que am na ñu ci ñàkk bakkan mais quand les résultats la là. baa ngi noonu nañu gën a góorgóorlu que ci projet sensibilisation sécuritaire bi ñuy def chaque année ci grand événement yi Euh, hivernage bi bu ñëwee ñoo ngi ci hivernage. ñoo ngi ci campagne de sensibilisation. pendant le contrôle technique dañ koy améliorer et tout ça ñu def maintenant nag on appelle à la responsabilité de tout un chacun mooy que ñun ñëpp bu ñu nekkee ci oto ñu xam ne question mécanique la à tout moment mun na bett oto mun na def visite technique et le contrôle technique c'est à l'instant T le rest c'est quand même la responsabilité individuelle de l'usager mhm. Mhm. moom moo koy toppatoo moom moo koy entretenir mhm. nit koo xam ne ñëw nga visiter ni ñu ne la frein yi jàppul nga dem di ci continuer di ko ça la responsabilité quand même individuelle et ça appelle à plus de sensibilisation maintenant ci yeneen détails yi c'est pas moom bon euh, xanaa souligner au passage rek avant ñuy dem gis-gis euh, transporteurs yi souvent ni ñu leen di njattee xam nga joxe na ay taux ak ay ratio yoo xam ni pour pourcentage souvent ci li ñu xam da ngeen di négocier ak transporteur yi ba juboo ci yooyu en général. leneen li tamit mooy est-ce que yii nga wax fii nii yëpp ngeen bëgg tëral transporteurs yi comme d'habitude dinañ leen ci bàyyi ndax souvent après on voit la loi la loi d'orientation vous reculez ngeen ciy dellu ginnaaw dès qu'on parle de grève uh-huh. la loi d'orientation biñ ko adopté hmm. ci la ministre bi commencé ay concertation avec tous les acteurs hmm. léegi tous les acteurs pour expliquer leen avant sax ñuy commencer et puis on les implique dans l'élaboration des décrets d'application. foofu rek ñëpp. Mhm. ñëpp vous êtes journaliste vous pouvez faire des indications. Mhm. on a ñëpp bokk nañ ci. Mhm. tous les acteurs. je dis bien tous les acteurs. et le ministre a fait des tournées avec techniciens yëpp ñu expliquer ñëpp ñu impliqué leen. partagé nañ ak ñoom ñëpp la loi d'orientation. Mm. les décrets d'application ay sous commission la ñuy def. te d'accord nañ ci ñu def ci. et bien évidemment parce que c'est pour l'intérêt de tout le monde. c'est pour l'intérêt de tout le monde. parce que secteur bi aussi ñun ñëpp ñoo ko bokk. Mm. du technicien ministère bi rek. du ministre bi du keneen ñun ñëpp la. parce que li am keroog moom moo motiver vraiment ñu ñëw fii. mais que il faut que ñu xam ne loolu la njariñ am na. maintenant et puis il faut que ñu accepter ñu ñu ñu ma préciser leen mm. l'acceptation sociale du projet de contrôle technique important il faut pas juste que ñu naan que perception oto yaa ngi daw amul visite non le nombre de véhicules qui passent au centre de contrôle technique c'est plus de 286 000 contrôles par an mm. ça c'est important mm. ça veut dire que les gens ils viennent le gars qui est venu ñu rakale ko il est revenu mm. ça veut dire que au moins quand même na ñun derrière il faut pas que ñu kii ñu pousser leen vraiment ñu gën a sensibiliser nit yaa ngi ñëw def visite technique fii nii waa TFM ñu bari ak keneen ak keneen moo tax il faut que ñu dem ci région yi parce que indicateur bi ma joxe léegi puis montre que tous les véhicules qui passent au centre contrôle technique moderne ne sont pas impliqués dans les accidents mortels Dakar mhm. moo jël 70 pour cent du parc immatriculé monsieur le ministre. oui c'est important. mais mais quand donc boo defee projet boobu nga def ko avec huit lignes. on travaille de 7 heures à 20 heures avec deux équipes. xam nga xam nga man man man vraiment s'il vous plaît man xam naa ne xam naa ne y a des efforts qui sont faits. mais a d'autres efforts aussi qu'on faire. que yu ñu deful exemple la qui sont en cours. est-ce que est nga wax fii sénégalais yi ne am na ay sénégalais yu amoon centre comme bi bi euh, Veritas di exploité qui aurait pu désengorger Dakar te du te ci biir Dakar lay nekk xam nga ça existe. ça existe. j'ai pas compris si si dama ne am na centre. avec des des des privés. privé. waaw ah. qui aurait pu bu noonu dimbalee liggéey bi pour mu bañ am encombrement bi nga xam ne moo am tey ci centre Veritas. Hmm. mais l'encombrement au niveau du centre de rek nañ régler problème bi après loolu xam nga lu muy indi. Hmm. mooy mi ngi mel ni bu ñu voté la loi sur euh, la loi agro-silvopastorale. mu ngi dara presque. xaaral ma pare mu ngi mel ni loi bi ñu fi voté bu mujj sur la décentralisation. Hmm. dossier bu mel nii. bu ko état di tabax. loi d' loi loi d' orientation bu ñu koy tabax dafa war a mooñaale mhm. les décrets d' application de telle sorte que boo paree suñ la voté les ces lois non non xam naa xam naa tuuti mhm. les inconvénients nga voté loi d' orientation

vous allez vous concerter. j'ai pas dit ça mais te duñu jubóo. j'ai pas dit ça te duñu jubóo ci dara. non qu'est-ce que vous avez dit alors lui qui n'a pas dit il faut qu'il parle de l'implication. Uh-huh. j'ai répondu en disant que l'implication am na. mais du depuis le début jusqu'à maintenant. je parle des décrets d'application implication avec tous les acteurs. waaw moom laay wax on dit la même chose j'ai dit que vous avez voté la loi. mais ci lañu ci et vous êtes en concertation pour les décrets. non je vous m'avez pas écouté donc. est-ce que vous avez voté les décrets. on s'est pas compris. mais les décrets ci on les a élaborés. c'est terminé. oui lu ci des signé ko. c'est le président. ah je non non je peux attends non lu ci des il y a une congestion au niveau de la. ñu war a signé mu travail technique. mais léegi léegi pour terminer technique pour ah, terminer tamit oui depuis le début jusqu'à maintenant uh-huh. je vous ai parlé quand même ci ay perspectives. parce que yooyu yaa ko wax. Mm. on a parlé du problème technique ñun ñëpp xam nañu problème bi. on est dans l'avenir je vous ai dit dans l'avenir parce que sécurité routière. c'est l'amélioration de la qualité de l'air et la sécurité routière. absolument yëpp englobé na. def nañ contrôle technique moderne ici depuis le 2012 on a évolué on a formé les gens on est dans la euh, euh, l'extension je vous ai dit que tout ce que vous avez parlé là l'âge des véhicules ak yeneen ak yeneen nee naa la c'est en compte dans loi d'orientation qui a été euh, validée non non non, non, non c'est pas pris en compte il faut dire il faut dire la loi d'orientation ah, les a évoqués c'est fini de jeex na ñu tàggoo xanaa rek fàttali tamit comme yaa fi ñëwal transport terrestre piétons yi nu ñuy organiser feu rouge yi dellu si passage piéton yi da ngay gis ko jàllee fii 5 mètres après keneen jàll fee <laughs> yow automobiliste nga taxaw may ko keneen fëlee fee may ko da ngay dawal sax ki nga àndal tene mayal diw mayal diw moytul diw ça aussi il faut de la sensibilisation de l'éducation ngeen bàyyi ci xel gis-gis la provocation. Oui, c'est quatre paysans là qui nous posent. Un Dakarois n'a jamais dirigé. di riir ngir ñi doon gàddaay ñu yóbbu ba ma mënoon nga tàmbalee ci réew mi nag balaa nga yóbbu bitim réew alors président yi yëpp a fa daje woon waaye dafa mel ni donte nee nañ am nañu yaakaar crise bi am Mali euh, altine bi ñu dëgmal dinañ ko defal euh, sommet extraordinaire CEDEAO maanaam Afrique sowu jant dëkk yi ci dajaloo waxtaanee ko seet nu ñuy indee pexe Macky Sall président Macky Sall bokkoon na ci président yi demoon jéem a seet nu ñuy def euh, ci alxames ji. ba régler loolu. comme ah, ma Papis Diaw. waaw man man su ma gisee CEDEAO damay bëgg def ay kii quoi ay ay ay roulade. xam nga là question du fauteuil de IBK. IBK waaw. ñoom ñëpp jóg nañu CEDEAO waaw parce que la question du fauteuil est là mais si c'est l'inverse qui se pose et on l'a vécu en tant que ñu dëkk ci sous-région bi s'il y a des problèmes de fonds ay problèmes de vie de guerre d'assistance de taxaw de liggéey de taxaw doo gis CEDEAO mm-hmm. tu les tu les vois pas Mali baa ngi nii mm-hmm. je commence même par Mali là où ça va ça commencé à chauffer oui. quand les djihadistes ont, se sont attaqués au, au Mali, gisuloo CEDEAO ce sont les Français qui sont venus régler le problème mm-hmm. et mais quand il s'agit de sen association bi kenn si ñoom menacé <laughs> mais tu tu vois les gens donc man je <laughs> insensible à ça. jéggi c'est les c'est les Maliens qui vont décider. mon voisin madame Fall ak. mais ma woon. ah li nga wax kay may naa sama temps pare yëpp jël may naa yëpp madame. donc de du ma d' accord ma ak Papis mais nekkuñu fii pour di werante dañ ne ku nekk boo amee sa gis-gis sama gis-gis mooy Mali suñu dëkkaale la. bu mm. tàkkee mën na daay. boo ko séenee fayal. ndax mën na agsi ba si yow. Mm. te ba fa ba def bi amee ak yooyu yëpp y a l'armée sénégalaise yoo xamante ne de envoyé nañ leen foofu. Mm-hmm. kon loolu mënta weesu mënuñu ko xeebal suñu bopp. kon ñuy ñaan yàlla ñoom métit bi ñu nekk yàlla na ko yàlla teggil waaye nag un président élu démocratiquement dañuy ñaan yàlla mu toog ba mandat am jeex parce que loolu mooy defar suñu image. mooy yoon ça je suis d'accord. mais man man man en tout cas sur li mu mujjee wax moom comme que dañ ko président bu ñu élire la moom ah. pour man dafa dafa war a jeexal mandat bu ñu fay jël. jërëjëf booba tey. Euh, monsieur Niang. bon man damay ñaan yàlla rek euh, jàmm. nekk Mali. ndax Mali ak Sénégal benn. benn lañ waaw ñaan yàlla vraiment jàmm dellu. Malal. je pense allez Charles. kon kay lu ma jaaxal mooy la situation au Mali à des degrés moindres moo nekk feneen. feneen fan. on parle de troisième mandat au Sénégal tu imagines. Charles comment c'est Aïcha euh, monsieur Lamine. waaw je pense que euh, bu fekkee ne dans l'opportunité bi la est-ce que war nañ ko def ou pas war nañ ko def. ndax zone bi ñoo ko bokk. Mhm. Euh, objet bi euh, est-ce que affaire parce que dafa concerner le fauteuil man dama jàpp ne dafa déstabiliser un pays boo xam ne dafa fragile à l'heure actuelle mooy Mali par un djihadisme bu amee encore beneen euh, élément nouveau bu gën a accentuer instabilité dëkk boobu je pense que les pays de la sous-région balaa ñuy woo ay France ki yeneen pays ñoom war nañ fa teew mhm. encore que avec la crise malienne CEDEAO quand même bokk na ci yëngatu na ci euh, loolu moo taxoon pour Sénégal yi dem fa. Mm-hmm. Mm-hmm. li tax nag tubaab yi yëngatu foofu gën fa yëngatu. ça c'est loolu dafa jéggi lim foog. Mm-hmm. c'est pas parce que dañ bëggoon sauver Mali rek. c'est parce que aujourd'hui il y a des intérêts yoo xam ne c'est des intérêts géostratégiques. oui mais moo tax moo ma terminer moo tax. je veux préciser un peu. je ne parle pas de waxuma la légalité ou la légitimité. du mandat présidentiel je n'en parle de la CEDEAO. dama ne la CEDEAO. comme d'un syndicat. Euh, on ah, mais je demeure je demeure convaincu que son mandat doit aller à terme parce que dañ ko élire. ça je ne dis pas qu'on doit. bien réaction président ni mu gaawee il y a des enjeux des questions des heures beaucoup plus graves. pour lesquelles ils n'ont pas bougé. man si oh, li gën a grave pour man à part amul pour man lu gën a grave euh, li nar a xew Mali. Mm. Mm. li nar a xew Mali mooy mun nañ dem ba le pouvoir légitime et légal. Mm. jël armes contre le peuple malien. te loolu moo gën a grave pour man fi ñu toll. attaque terroriste yi contre contre l' état malien de manière globale. or Mali dafa nekk pays boo xam ne dafa wuteeg Sénégal. dañuy gaaw a yéegal tension stabilisation doo seetlu lu ñu daanelee seen président yi. te loolu li mu mën a jur suma lu gën a grave loolu pour que CEDEAO bañ a bouger CEDEAO bougé na CEDEAO affaire Mali bi commencé wul léegi. Mhm. c' est pas ci affaire bu ñu naan ko IBK da ngay dem. Mhm. bi ñu commencé manifester ak léegi boobu ba léegi CEDEAO da wax naan garaawul. Mhm. mais bu ñu demee ba gis ne dernière manifestation bi malgré lu seen leader bi wax. ne jarul def kaas. dem leen manifester rek. nit ñi génn quand même. dix mois ba mu am ay 23 mois. Ah, je ah, pense que président ah, CEDEAO yi jot na pour man ñu jóg dem dem intervenir foofu rek la mën jox quoi. waaw moi je pense que. mais seen dem bi. ah mais non Bamba Bamba bon ah, moi je pense d'abord que symboliquement <laughs> il fallait que CEDEAO euh, dem Mali <laughs> président yi dem il faut aussi également que ñu jéem a xool yan instrument euh, de la force communautaire nañ mën a utiliser bu fekkee mën na nekk pour régler euh, la situation. contre les Maliens ndax ndax non pas contre les Maliens avec les Maliens. ils veulent pas de leur président ils s'en vont. Ah, non attends attends Charles. on ne peut pas aussi les Maliens je pense l'histoire nous renseigne que ce n'est pas la première fois que le Mali procède de la sorte. Oui. mais les issues peuvent ne pas être les mêmes. absolument. ensuite li ñu ko tàmm def tamit lam mu fa jur kenn xamul ba léegi juru fa loo xamante ne dañ leen dañ dañuy fi tasu. naan leen yéen a fi yeey donc je pense que. suñu njiitu réew yi seen yoon ak seen kàddu nañu nekk li ñuy def nii xëy na loolu nañ mooy li ñu war a def léegi nag question bi mooy ndax lii ñuy def dana am mujjantal wala du am mujjantal. Hmm. gis-gis bi si topp Pierre.